waaw man mi tamit kenn préféré wu ma dan maa wax rek mais dama ne amul problème man tamit. waaw mais da ngay xaar ma woote wax li may wax xam li may wax aussi parce que bëgguma wax loo xamante ne dina ma indil problème. waaw mais loolu tamit da nga koo war a nax danañ ko war a nax avant bala ba avant ma doon génn ne di wax une heure laay commencé live bi parce que ay sénégalais ñooy seetaan. ay waroon na maa woo waroon na maa woo non man nu ma lay woowee man dan maa woo rek. damay tàggu ba pare. man dan maa woo rek. du dëgg ah dëgg rek laay wax lii laa doon bañ quoi ay xaaral nan dugg fee nan dugg fee allo waaw Uh-huh. waaw mais loolu mais lool da loolu dañ ko waroon def avant parce que bu ma waxee ne ma Adji Sarr euh, day ñëw vingt vingt une heure moom mu wax ma ne ma une heure moom tamit pare na parce que man tamit jot naa ko avant yaa ngi dégg su ma defee annonce. ma ne une heure laay commencé live bi une dafa war a fekk loolu lépp pare ay maître El Hadji Diouf ay ña avocat ak ay ña fa war a wax ak ñëpp dafa une dafa war a fekk ñu pare une heure Sénégal parce que man du ma dajale Sénégalais yi ñëpp toog di xaar ñu ne danoo war a waxak ak avocat yi danoo war a woo diw danoo war a woo diw loolu avant lan la waroon a doon du dëgg waaw maa lay dégg waaw waaw non non nank wax de meruma de.

waaw hmm. waaw hmm. waaw hmm. waaw waaw non non mais mais dafa am heure live dafa am heure boo nee une heure la boo nee une heure quinze une la boo nee deux heures deux heures la dafa am heure affaire bi du lool de dafa am heure waaw non yow li ma la wax yaa ko gën a xam man je suis pas ci réew di toog di dajale Sénégalais yépp du dëgg aha kay live dafa am heure waaw hmm. waaw mhm. ok léegi loolu ñaata temps lay ah waa baax na ci kanam. maa ngi dégg waaw. non public bi moom ñi ngi fi man li ma bëgg a xam mooy na Adji Sarr ñëw yaa ngi dégg waaw waaw waaw uh non bala maa wax dara faaw ndeyi mbilli gi ñëw ok baax na ok gars yi ñoo ko gisandoo instant bi ñun ñëpp teew nan une heure lan ma waxoon une laa def annonce li nu ma waxoon laa def une jot na ay damay woo maître El Hadj damay woo maître Thiam damay woo maître Kële loolu mën na cee bañ a am ah boo ñëwee ñëw leeral ñëwul dugg rek leeral comprendre nga waaw du ma topp sama xol nag ndax su ma toppee sama xol damay mer wax lu ëpp wax loo xam ne nii waru ma koo wax comprendre nga mais damay toog rek ma kuul mais man je suis pas n'importe ci réew mi comprendre nga. je suis pas n'importe qui ci réew mi une heure une heure la deux heures deux heures la yaa ngi dégg trois heures trois heures la minuit minuit la vingt trois heures vingt trois heures la comprendre nga waaw kay noonu la demee